asalaamaaleykum euh, daleen nag jaam seen biir émission Fashion Clique Fashion Clique soo ko déggee saa su ne su émission bi tolloo ci waxtu wi dañuy daalal ndaanaan kullu fadrin koo xamante ne lépp lu jëm ci wàllu daggati corote ak di ko kuppati ba mu normal xam nga maanaam li ñuy sol muy jekk ko gis daal di apprécier dañ koy dalal ci plateau ñu koy oowee styliste wala ñu koy oowee couturière wala nu ñu koy mën ci oowee ak foo mën ci nekk tey dañ koy dalal suñu biir plateau si xaak moom waxtaan

di leen ne tey man maa fi nekk jàkkaarloo yi nar la wax ban yoon la ñu war a jaar ak fan la ñu war a jaar ba egg fi ñu war a jëm. jaajëf kon dafa mel ni kon ne moom euh, déjà ñëw na ci introduction li nga xamante ne moom nañu war a waxtaanee déjà madame euh, Fatou Dia Boris Tall tey passé nañ une journée yoo xamante ne nii euh, mën naa ne kenn dootu ko fàtte. ndaxte ñëw nañ seet la ànd ak équipe bu Fashion Click foofu ci jàmm gën jàmm gën foofu noonu Lansar nga teral leen macha allah añi bernde yi. Euh, lépp neex donc gars yi yëpp wax nañ ma ko ñoom Amina nee nañ vraiment ça a été extraordinaire loolu noonu balaa ñu ñëw ci wàllu sañse beeg daggati yeeg ñoom seen loolu nga xamante ne muy muy muy xol wu rafet di laabiir di togg mu neex yàq loolu nan la nekkee ci yow parce que jëw la boo xamante ne dañ la koo jëw. mais loolu dara loolu moo gën a moo gën a la jox loo xam ne waroon naa ko mën a def parce que nit ku déplacé wu dëkk ak dëkk. waxuma la kër ak kër mais dëkk ak dëkk parce que fi ma dëkk ak fi ngeen dëkk sori na mënoon ngeen dafa sori duñ fa dugg donc loolu moo gën a ndaw ci loo xam ne waroon naa ko mën a def waroon naa fa def lu ëpp loolu mais ak ni ngeen ma fekkee la rek mais waroon naa fa def loo xam ne moo ëpp loolu franchement. vraiment merci rafet na déjà donc ñu dugg si ci li nga xamante ni moom mooy waxtaan wi. ok donc euh, ñu bëggoon xam euh, madame Fatou Dia nan nga taxawalee lii di complexe body style. bon ni ma taxawalee complexe body style neex na mais jafe aussi parce que parce que dem ngeen fa gis ngeen ni ñuy liggéey liggéey bu metti la parce que nit ki aussi su fekkee da nga bëgg dara il faut nga def dara pour nga am dara mën a egg fenn metti na trop commencement bi metti woon na trop parce que commencement bi maa ngi commencé sama biir nekk bon mu metti woon trop ñu pare ma ut benn véranda bu tuuti nekk foofu ak benn machine di ci liggéey noonu noonu client yi di ñëw ndànk ndànk ndànk ndànk ndànk ma génn dem feneen tijji foofu mu metti trop parce que weer ak weer mu metti trop ma dawaat ñibbis li ñuy wax jàmbaar dafa wuti mhm. daw ut base mhm. ma ne di uti pas man sama fima ma Je ne pas mhm. wax fa ut base ci ut base toog machallah, ça va avec le temps may dem muy metti muy metti metti ba body style nekk ba léegi nag mu ngi metti mais sant yàlla la parce que soo commencé ben dem ba fenen, donc dañ koy sant yàlla bu baax a baax effectivement waaye tamit euh, li nga xamante ne nii base bi di bi manam tey ni nii soo ñëwee complexe ñëpp xam ne jafe-jafe su nekk waaye itamit dina dina laaj ben xam-xam ben ben ben xam-xam sa xam-xam màcc jëm ci li nga xamante ni muy wàllu stylisme fan nga fan nga fan nga jaar ndax yow da nga tëb rek affaire bi nga yew rek seul mu rek ne waa dama bëgg nekk styliste nekk styliste wala da nga dem ci école jàng am xam-xam wi am lijaasa yi ci war ba soo ko ubbi. bon avant tout damay avant may def styliste avant may def stylisme. Mhm. dafa am fu ma jaar d'abord. Mhm. dama def coiffure ba pare dama def deux ans de formation faire. Je fait deux ans de semi-stage, six mois. Je me suis fait une école, bon, comme je me permettre de faire école ou pas. Je suis fait dialyse.fr. Je fait deux ans, six mois. Deux ans, six mois, je suis allé, je suis bon, d'ailleurs. Mm xale laa te waxna naa mën def yeneen recherche pourquoi pas ma dem defi stylisme stylisme c'est vrai que amone na idée bobu et tout mais sama ya daf ma ci gëna pousser poussé. mu hmm. koy sante diko ko nak hmm. parce que tay fuma ma egg mom moma ma dooleel. ma egg fi moom ak samay sœur ak sama frère ak sama papa ñom ñep ñoma jappalé ma tok nonu yalla def suma doon genn machallah xew buma ma dem ñew gaay yi dañuy ñew àbb si modèle alors que du man mako ñaw. Hmm. mais damay ñew tout temps sama loxo daf ci dugg. non sama yay xol ba yag ni ma waa Fatou ma ne ko pourquoi pas mënuloo dem nga defi ñaw bon mom mu ngi doon xol kolé saw ardo mu ma kolé saw ardo limi def pourquoi mënuloo ko mun ko yii yaay loolu dafa cher dafa métti loolu mënu ma ko mun ma essayé dama nga xol ma jël presque 2 jours wala 3 jours may war ay école yo xam war na ko mëna a dugg mais école yi ma doon dem yëpp dafa bon sama moyen egguloon fofu ta mënu ma won fayal mënu ma woon fay loolu parce que xam nga rek des fois ak famille et tout commencement bi c'est un peu compliqué. Mhm. pour nga jóg rek ni kenn ni fayal ma lii. da doon metti mhm. may wër di wër di wër ba yàlla def un jour may seetaan télé gis benn annonce. Mhm. bi ma laajtee bon vraiment ak prix bi ñu ma wax foofu ànd na ak man li nga xam ni mën naa ko. ma dem foofu ci laa demee ISMOD. foofu laa génnee foofu aussi ma def fa deux ans. bi ma defee sama deux ans ñu jël ma foofu may jàngale parce que.

tax na ñu ñëw seet la parce que adduna bi dañu seetlu bu baax am na ñoo xamante ne saa ñu amee rek dañuy fakk dañuy daal di dem feneen foo xam ne nekkul seen gox mais moom Fatou Dia bi ñu demee ba ci goxam dem seeti ko dañ gis ne moom dafa gëm bu baax baax li nga xam dañuy wax ne koy yaan dafa fekk sa dëkk daa tëggul moom dafa gëm bon lieu gëm fi mu dëkk ba ci ba tax na madame Dia tey jii nii tey jii de bi ñu ñëwee gis nañu ne defoo rek li nga xam ne mooy couture defoo rek ñaw stylisme defoo loolu mais yaa ci kanam yi yaa ci bopp yi loolu itamit nan lay nan lay demee parce que loolu dafay demander nga am benn équipe boo xamante ne kenn ku ci nekk day chargé wu ci lenn waaw nañ nga expliquer ñu. bon avant naa sama liggéey boobu la métti woon léegi nii mun naa ni métteetul parce que comme on dit tout le temps en wolof que ni benn loxo du tàccu. nit ku ñame rek dañ la dee. Mm-hmm. may sant sama xale yi nga xam ne ñoom laa nekk ak. Mm-hmm. nangul ma trop vraiment. des fois il m'arrive des fois duma sax dugg ci atelier bi lépp ñoom ñooy def vraiment tey su ñoom suñu fa nekkutoon dina doon di gën a metti ci man xaaruñu ci man dara lu nekk ñoom ñooy def mais ku nekk ci ñoom aussi dafa am loo xam ni mu heure boo xëyee moom nga war a mën a def man ak lu may def ñoom aussi ak lu ñuy def vraiment ñu jàpp ci trop ma leen sant di leen gërëm di ñaan yàlla aussi mu musal ñu ci cat eh, ak seytaane parce que fu mu xaju rek lay dugg mm-hmm. waaw di leen Euh, li nga xamante ne mooy tentation yi nga xamante ni mi ngi ci biir milieu parce que ku ne mode xam ne dafa am ay mbir yoo xamante ne ciy laxasu te yow euh, euh, sa statut sa statut situation matrimoniale xam nañ ko ne yow t'es marié donc am nga am nga borom kër ah nooy dundee ñi nga xamante ni ci Facebook bi la ci ci internet bi ah ci ci milieu yi nga xam ne moom ngay présenter parfois say say ay modèle ak ñoom seen nan ngay dundee li nga xamante ne mooy tentation yi nga xamante ni yaa ngi koy yaa ngi koy am. merci beaucoup Lamine wax nga da nga poser question bu am important. différence parce que aussi euh, comme li ñuy wax tout ñu baax ñi ñu baax ñi ñu ci mbedd mi mais ñu bon ñi aussi ñu ngi ci biir kër yi comme ñu baax ñi ñu ci biir kër yi ñu bon ñi ñu ci biti aussi nit ki pour man xam fi nga jógee xam sa bopp weesu nga xam ku sa ndey ak sa baay xam fu nga jóge xam ni aussi yow xëyoo xëy rek nekk li nga nekk dafa am foo jaar tey su fekkoon say parent dañ la jur bu bugguñu nga am moom nag kon foog naa doo egg fi nga bëgg a egg donc nit dafa war a xalaat fi muy jóge am na ci am na ñoo xam ne gisuñu lu dul ngay liggéey nekk ci benn yoon ñu ne non kii il faut am lu ñuy def yooyu yëpp am na aussi da ngay xam sa bopp xam fi nga jóge soo xamee sa bopp xam fi nga jóge loolu du la sonal parce que tout le temps li ngay jiital mooy réussite te vraiment nekk nañ ci euh, euh, ci domaine boo xam ne vraiment ñu ñëpp réussite lañuy euh, la ñuy ñaan donc pourquoi ñu suñu kaw suñu

waaw dama ñëwoon fii euh, bon damay nuyu d'abord suñu mbokk euh, téléspectateurs yi dama ñëwoon fii en fait di préparer sama e-musique sama émission bi ma jaar fii nii ci madame Fatou Dia ci Body Style mu defar ma jàmm la sama kanam wala may dem sama émission pare di Body Style xam nga bu mënoon nañ ko bañ a defar tamit ñu ne xaalis bi ñëw nu mu ñëwee rek ñu liggéeyee ko noonu te barina fi tamit te yooyu koy liggéeyee noonu dañuy ñëw noo ko fay rek noonu nañ koy liggéeyee mais moom fa séntuwu si dara nee na plaisir bi mooy que ne mu defar pour nit ñi sol ñu ne rafet na ñu xam ne moom moo ko defar sa lool rek sax la dèjà mais ñi ngi ñaan yàlla rek nit ñi ñëw ñi accueillir leen defar ba mu baax rek. incha allah day baax. faatu lii nii da foog nga wax ma lii ci lii tuuti parce que lii velours la te ñëpp xam nañ ne velours am na am na ay temps demoon na ba ba ba ba démonté woon na presque kenn solatu ko léegi ñu gis ñu delloo si waat velours yow nga jël velours bi expliqué ma li nga ci jot a def nii ah nga instant dañu nekk ci période tàngaay. te velours aussi rafet na rafet boo xam ne kenn waru ko bàyyi te Sénégal dañu am tendance di naan lii moo xew léegi la la xewul man damay ne tissu bépp woo indi rek xew na te lépp loo indi war nañ ko mën a ñaw dama jël voile dañu nekk ci tàngaay mu jël voile jël velours surtout velours yi kuppati ko teg ko ci ñu teg ba pare euh, euh, jël suñu perle teg ko ci kawam lépp pour xale yi bëgg mën a kontaan mën a sañse ci été bi aussi. dal defe naa ku ci bëgg création nouveau modèle yeeg affaire yu papi fii nga ñëw te également dañu remarquer que ni équipe bi c'est c'est une équipe vraiment ay jeunes lañ ay xalé rek ñoo fi nekk Fatou affaire yi nan la lay ñëwé nan ngay def tok tok rek créer ben affaire xalaat ni li warna ko mun ñëw. bon ça dépend man daf may dikkee ci façon yépp des fois damay teg tissu sax luma xam luma ma ciy def damay nit ki daf may indi tu ci ma xam luma ma ciy def mais une fois ma tek ko ci kaw table rek affaire bi day ñëw automatiquement ak yenen façon yo xam vraiment. loolu man maa ko moom quoi <laughs> du ma ci wax. te gisaat naa fi benn orange bu baax noo faatu bii moom de toute façon du ko fi bàyyi bii bii xoolal bii waa lii jàpp ma yow. jàpp na te ah? duggagul te duggagul xam nga ah. xam nga lii bu ma ko tegee lii dinaa def champ ah, ba def sama toq talon waaw dinaa def sañse de woon ma gis bi ma ma xool yow waaw yow te fente devant la mën nga nga ci def. gis nga fente côté rek lañ ko def. lii def na champ de. comprendre nga def champ mën a dem hmm, <laughs> donc yow yow yaa ñëw li waaw. Hmm? lii nga ñëw de jot champ na de. yow yaa leen jàngal yii yow yaa yow yaay dagg ñoom ñuy ñaw wala. waaw damay dagg ñoom ñuy ñaw. ñoom ñuy mhm, ñaw mhm. su fekkee daamina la aussi dafa am koo xam ne vraiment moom spécialité am euh, daamina la. Hmm, suñ daggee moom la ñuy jox mu daamina après xale yi sàmbale ko. tey nag lépp dinaa leen ko wan body style dinaa leen dugal ci ruq yeeg ruq ruqaat yi mu ngi fi yëpp la ñuy xool tey dañ dem des na xam nga man dama sob moo ñëwee damay bëgg a xool yëpp nouveau modèle yeeg laa bëgg waaw yooyu laa bëgg dama bëgg sañse yu baax yi waaw léegi waaw c'est vrai ñu toog tuuti dallu mm-hmm. def affaire u ba séeréer newuñ fi def affaire u séeréer naan tuuti sedd <laughs> jeex na waaw <laughs> <laughs> Euh, au fait man Kadja laa mais ñoom ñu ma gën a xamee ci turu mami ñeesu Faat Bintu laa sama sëru yaay lay euh, waaw. sa ak moom boo ñu ko doon wax tey. Euh, Faat Bintu du ma wax ne que sax sama sëru yaay la dama wax man sama sëru bopp la parce que peut-être am nañ benn relation boo xamante ne jegante nañu et tout en plus d'être sama sëru yaay aussi sama xarit la sama sœur la. xam nga dañuy waxtaan on sa partage tout pratiquement muy nit ku baax koo xamante ne réyalul boppam xoolewu ma genre comme quoi ñeesam la wala dara limité sama relation ak moom non dafa ma def comme boppam bu amee benn problème dafa may woo def ma comme moromam et tout se dit tout pratiquement daal donc sama xarit la jot sax moo baaxul si moom amatul jot man amatuma jot mais comme ak technologie bi nu mu avancer ak yooyu téléphone yaa ngi ci dëkk bi même fekkee amatul jot bu baax pareil man aussi donc euh, du coup ci man téléphone mu ngi facilité li mu doon def ba tey n'empêche du ñu réeroo ci dara bu amee benn projet wala lu mu war a def dafa may woo mami war naa def li yëg li yëg li comme émission bi daf ma woo ne ma mami dafa am ñu may seet si bëgg naa boo wàccee nga ñëw donc ci man loolu mënul yàq dara en tout cas LHC la même changé wul nu mu mën a xëyee mu def ba mu baax romb ci koñ bi dem noonu la mën a xëyee def carax def sër rombaat dem changé wul dara ci moom maa ngi koy ñaanal mu gudd fan Bouddhist dem ba traversé romb frontière yu bëri ñu xam ko niñ ko xamee ci quartier xam ko ci Dakar xam ko ci Sénégal ñu xam ko ci yeneen dëkk yi et mu nekk benn entreprise boo xamante ne day ubbeeku yàlla def ko mu dem ba nekk complexe institut de beauté pourquoi pas parce que elle est ambitieuse xam na commencé na ci néant et tout au début être fi mu commencé ak fi mu agsi xëy na jomam ak ambition bu bu sori moo ko ko yóbbee daal moo ko ko may amna lu mu bëggal bopam elle est pas coincée genre limité wu ci dara né non man stade bi la yamola dara elle voit loin maa ngi koy ñaané yalla mu motali yéene yooyu yëpp comme ni ma wax fini romb Body Style dem ba nek complexe xam nga nek institut de beauté et tout yalla defal ko jamm dal defal ko mu bëgg parce que nit ko baax la elle le mérite. merci Kadia. man euh, maa ngi tudd Pape Makhtar Fall ñu gën ma xam ci PM Fashion. Euh, sa relation ak mamé lan la. Euh, sama relation ak Fa dafa nekk loo xamante ni sama benn xarit moo ma boole ak moom mais depuis bañ ma boolee ak moom tamit rëccuwuma lu ñu ma boolee ak moom parce que grande sœur la mère la ci côté bi yëpp fu ma ko mën ci woo 4 heures du matin 3 heures du matin yëpp elle me décroche ñu waxtaan bu ma amee défilé invité ko ba suñu nuit de la création bi passé moom mujj mais elle avait pas de temps mais foo ko mën ci woo mu nekk tamit nit koo xam ne dafa oyof sincère ci lu muy def dalay wax dëgg fu mu mën ci tool di la conseiller pour nga jël droit chemin. mais est ce qu'en tant que ñaar ñi ci xamantene ne bokku li ngeen di def est ce que dina leen arriver des fois ngeen di waxtaan ci li nga xamantene modi côté modèle yi wala nga gis ko mu def ben modèle nga ni ko no bi buma sañon nga def ni wala mom mu gis la nga def lu xamantene ne mu mu yokk ci xalaat. Ba si parce que sama défilé bi passé mo ci muju parce que dama koy indi sama collection wan ko ko mu nekk nit ko xamante mu expliquer mané ma ah sa collection bi rafet na mais modèle bi jël naa ko modèle bi tamit jël naa ko

parce que ben benn bu may andal bu dëkk seen ginnaw kër moko xamoon man mam défilé wax ko ko kooku ne ma amna sama ben grande sœur bo xam ne styliste la xaa ma yóbbu ci mom bama ma tamit elle m'a kayi ubil ubil ma porte yëpp ñu tok waxtaan ci loolu depuis là ci lañ amé relation bi ñu am tay ba fu mu ko fu mu mënti dem tamit daf may wo bu mu mënti xewle tamit daf may wo man tamit mu mënti xewle tamit dama koy wo lan nga koy ñaanal. xanaa di ko ñaanal gudd fan wër ku yaram. ak diko ñaan réussite totale dans la vie kon nu ñuy déggé ñom Jean Paul Gaultier diko déggé ñom euh, ñoom Ardo styliste yu mag yëpp Sadia Gueye ñu déggé ñuko ñu su lu ñu séentu ni doon ben société bo xamante lu reuy lay doon ci mom ak ñepp ño xamante nek nekk nañu styliste ak yëpp ñepp euh, boole doon ben daal. merci beaucoup. ok Fatou moom li ñu wax ci mom bari na ba tax na mënuñ wax lepp dal baxna en plus jàppee ñu comme employé ci salon bi wala ci atelier bi daf ñu boole ñun ñëpp jur ñu nekk en même temps suñu mag diñu conseiller relation bi yamul dal ci entre employé ak patron. Euh, est-ce que Fatou ci côté liggéey nan la mel est-ce que des fois di ngeen gis bu ngeen nekkee ci liggéey bi dafa sévère wala nan lay mel. bu ngeen wa bu ñuy liggéey moom day sévère parce que c'est normal toujours day daf ñuy bëgg di wax ne liggéey bi ci la kii wam ba tax na du ci kaf du ci ree mais en dehors ci liggéey bi moom elle est sympathique wér yaram liggéey bi dem ba kawe yor kii suñu njott en même temps ñuy ñaan yaay suñu relation gën a continuer bañ a yem fii daal. Fatou Ga wax ci moom dëgg la nit ku baax la nit ku yaru la mais am na tuuti défaut. wax ma défaut bi laa bëgg a xam défaut bi. xam <laughs> man maa ko ñeme ñi fi toog ñëpp moom mooy loolu mais am na défaut mais garaawul dama ko koy baal après dinaa ko wax. ko wax <laughs> la ko wax. nan la mel ci ci côté liggéeyam ci côté famille côté liggéeyam nice lu ma sol man moo ma ko ñawal ba lii nii sax xaw ma ne woon sax yéen a ngi fi mais moo ma ñawal lii <coughs> liggéeyam lu nice rek lay def man moom fu may dem dama naan ko faa am. mu ne ma lu ma lay defal ma ne ko loo def baax na lu baax la may ñawal lu rafet lu may ñawal fu ma génn tamit daf ma koy laaj te jigéen laa bu dul bu fi nekkoon ci koñ bi du def lu baax du ma ñëw mais moom lu baax rek lay def ak lu rafet dafa baax ba pare bëgg yaayam te loolu rek moo am sens am lu ma bëgg ko dafa bëgg yaayam ndax damaa bëgg sama yaay faa wax danaan sama yaay sama yaay sama yaay mel mel. mel no xamante man mënuma ko sax wax man mom ni mel si man franchement mënuma ko sax wax su ma toogee fii wax rek moom mooy loolu ndax man <coughs> ni mel si man man mënuma ko fay. kon tey kontaan nga ci set si bi bi nga xam te lañ ko torop te rek xool nit ñi rek xam nga borom baax rek moo moo mën am lii daal ku baax rek moo mën am lii dafa franchement man moom mënuma ko fay ci Hallelujah. Ça va, wow, je m'appelle Pendegayo. J'habite à Fasmba, plus connu sous le nom de Penchita. Euh, puis voilà. Mais Pendegayo, nous dit que mannequin. Oui, je suis mannequin. Alors, est-ce que vous pouvez parler un peu waaw euh, euh, ça fait plaisir ma ma wax de ci sama euh, parcours chez Mankinambi, parce que Mangi a commencé en 2009 si je me rappelle bien mhm. dafa doon am ay ay concours de miss Don am si secteur de ma dëkk Don naa ci participer je crois bien septembre 2009 ma dugg ci Oscar des vacances fa débuter, débuté fa commencer, ma commencé di ma euh di dem dugg ci inscrit ci agence yi di dem ay ci Petite Côte bi ay salle di défiler di dem Saint-Louis di défiler dem Gambie défiler et puis voilà quoi ba en 2000 2011 2012 ma bokk ci Labado Miss Labado qui se passe à la 2 TV, bokk naa ci.

ndaxte tenue la boo xamante ne da nga koy sol euh, bu fekkente ne ay collection la nga présenté ko bu fekkente ne ay pose photo la nga def ko boo ci paree pare nga ci c'est ça c'est vrai waaw waaw mais loolu moom euh, c'est euh, c'est valable pour toute femme parce que jigéen bu nekk war nga bëgg lu rafet jigéen bu nekk wax nga eh comme on dit, la belle vie, tu vois. Euh, mais ay lañ nak euh, mais n'empêche que dañuy liguey ni c'est des élèves yo xamante des étudiantes parents Ils ñoo di gérer sont ils sont embauchés tu vois ñu leen di fay par euh, ñuy jënd sen ay yu rafet jënd sen ay yu c'était pas facile c'était pas facile du tout parce qu'au début comme une colonne ko doon tu vois naan ay mannequinat bi lii moo ci nekk la moo ci que ni di wax fii ñii di wax mais parents yi à chaque fois boo toggee ak ñoom nga faire les comprendre que ne au carrément lingue nga bëgg comprendre nga bu baax et que amener une nu amener la yaree am éducation boo xamante ne jox nañ la tu vois et que yow yaa ngi demee loolu tamit je crois que du am benn problème au début il euh, y avait euh, ñoo xamante ne ci membre famille bi nous ñu doon wax nan waaw bum ci duggu parce que li parce que la mais du dara nit ki man je me dis que li ngay demee ci sa bop la parce que amna ño ñoo ñu ngi seen biir ah ils sont pas des ils sont pas des mannequins te ñu ngi def lo xamante ni du man maa fi toog wax. ah mais j'ai ko rek ndaxte ko xamante da nga yëg ko péjëm té nit ñaa ngi toog jàkkaarloog yow di la seetaan ñii dañuy apprécier ñii dañuy xam ne sa liggéey la mais am na ci certains yoo xamante ne dañuy xaar nga wàcc xam nga ñu lay jëm di la incarner yow yaay si am sa caractère bopp am sa dignité xam ne carrément yow tu es venu pour présenter tenue bi ngay présenter soo paree jël sa taxi et puis rentrer chez toi. waaw c'est vrai comme je le dis souvent c'est juste une passion tu vois dañ koy dund benn instant après mu jeex parce que man mi di wax ak yow man j'ai mon travail Hein? Ah, dama am sama diplôme je travaille boole koog mannequinat bi c'est ton temps rek après ça passe voilà. sentiruma moko, non loolu euh, ça m'a jamais arrivé Juste bu ma arrivé woon euh, loo xamante ne carrément lii sentiruma ko ma ne duma ko sol ah mais comme arrivé gu ma daal mënu ma ci wax mënu ma ci wax daal.

bon sama dernier mot à téléspectateurs et moi remercier de ah, fans yi nga affaire tu vois et que ñun ay simple xam nga ay simple ay de remercier suñu famille sama yaay euh, soeur sama ay frère nous comprendre tu vois ma milieu ak styliste yi nga xamante ne ñoo ma ñoo ma jege bu baax di ma defaral su ma naay si ñoom la ku ci mel ni Fat Bintou Dia bu di style tu vois euh, ay nit yu baax a baax a baax yi ma yàlla boole maa leen di euh, nuyu bu baax di leen remercier voilà. kon euh, mu mel ni ne lii nañ leen indiloon ànd ci ak madame Fatou Dia bu borom body style di leen jox rendez-vous très prochainement ci beneen numéro bu bees Fashion Click.